télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV waaw ñoo la gën a kontaan ñoo la gën a bëgg Pape Samba en tant que vice-président naka nga gisee journée bi weekend bi APM bi organisé nag nga ko jàng. waaw jërëjëf xanaa wax ni suñu weekend scientifique bi macha allah ñu ngi dellu di santaat yàlla. ndax xëy na métti métti na woon ndax euh, bu ñëw du ñu wax sax euh, euh, deux jours yi mais dañ naan trois mois yu mujj yëpp daanaka si nañ nekk bu ñu xëy si nañuy nekk bàyyi suñu yëpp vraiment nekk si bëggoon ci lii réussite bu mu am ni vraiment muy la te nag kontaan nañ ndax dajale mbooloo yomb na mais gérer leen ba ñëpp ku kenn kenn ku nekk ci génn rek kontaan yaakaar naa moo dax te am naa yaakaar ni nit ñi nit ñi kontaan nañ. lan mooy seen bon suñu secret nag mooy balaa dara mën nañ wax ni APM moom. Euh, ñun yàlla dañoo dimbali boole ñu ak ay kilifa ay kilifa am te ne mën nañu wax ni ñoo nekk suñu ginnaaw xëy na ñun ñooy dem ñooy ñëw ñooy ñooy jënd ñooy yenn ñooy teg mais cerveau yi ñoom la ndax euh, ñoom ñooy euh, ñoom ñoo ñoom ñoo ñuy wax bu nit ñi meree moo ñoo lay ñoom ñoo lay dalal ñoo ñuy jàngal lan may àdduna ak lan may àndandoo ba tey tax na ba kenn ku si nekk rek li nga yéene sa bopp moom moom nga yéene sa morom kon yaakaar naa loolu rek yaakaar naa ni mooy nañ wax ne mooy suñu secret APM mm-hmm. fan la jëm Pape Samba fan la APM. bon APM nag fu mu jëm mooy euh, xar yee ñu boole mais am na yeneen projet yoo xamante ni tey bokkul ak xar yi am na APM am na yeneen projet yoo xamante ni bokkul ak xar ndax euh, ay dëkkuwaay ay yeneen projet yoo xamante ni tey ñu nekk si biir APM même ca ñoom liggéeyuñu sax seen njaboot mën nañ si liggéey ñu ngi si kon yaakaar naa ne ñun xar ñu boole mais suñuy bët jël na xari yi fu mu toll nii. Mm-hmm. en tant que vice président. 2022 lan ngeen di waajal lan ngeen namm ci 2022 bi. bon 2022 nag am na ñu am te ne ñu ngi wax foire xëy na comme ñun xëy na ñu ñoo jiite mais assemblée bi tamit dañ ci am dogal ndax tey fekkee ñoom dem nañ ba ñoom ñëpp ñu taxaw ne dañuy foire aussi tamit mënuñ ci dara lu ñu mën rek mooy tamit xar suñu tànk tubay xool lu ñu fexee ba foire mais nag am na yoo xam ne foire baax na lool am na njëriñ mais am na yoo xam lu ñu def nii tey góob ma ni daal euh, am na ko gën. koo mën am na lu ko gën léegi nag euh, deux mille vingt deux ah des na naan nañu yàlla bàyyi fii rek ñu fekk ko te tal ko waaw bu yàlla euh, may ñu fekk ko te tal ko laata nañ mën a xam lan nañu lan nañu def wala noonu. Mhm. Pape Samba naka nga gisee Ladoum TV ak taxawaayam ci élevage. <laughs> waaw Ladoum Ladoum TV nag am naa yaakaar ni loolu dama si sawar sax ndax damay woo sama waa ji muy raan raan kaay raan kaay non kaay kaay waa kaay dama bëgg nga ñëw fekkee ndax euh, am naa yaakaar ni première édition bu ñu def Ladoum TV yaanaa man la. waaw premier première bu ñu laa Laadum Laadum TV man maa ko njëkk a def kon tey yaa yaakaar naa ni bu ñu gisee tey mu dem ba toll fii ñu leen di dégg si dëkk bu nekk vraiment ngeen liggéey liggéey bu extraordinaire muy la nga xamante ni day feeñ si seen euh, seen caractère muy seen jikko ndax bu yàlla dogalee ñu bari jéem nañ ko gis nañ fi façon bu ne gis nañ fi façon bu ne ndax Sénégal moom xëy lu ñu xam mooy euh, xamuñu créer mais bu ñu créer rek ñëpp daw dugg si mais luy dëgg rek ay mujj te li ngeen def ni dëgg la. moo tax ngeen toll fi ngeen. mais comme ran sama waay la sama doomu ndey la vraiment euh, am na si am te ñi ñu ngi koy ñu ngi koy ñu koy waajal muy lu extraordinaire comme média média na ñuy waxee doo wax mu fës ni ñi njëkkante koog yow dañuy bàyyi ba wutal ko ay kayit def loo xam te ni Sénégal fii ah non mais émission bi tax dañ ko wutal ay këyit ah émission bi am na ay këyit kon kon kon yaa naa muy am te ni jeex na kon. dugal naa ko Sodaaf bu yàgg mhm. li ñuy waaj man ak moom nii. Mhm. non dugg na Sodaaf bu yàgg. te nag na nekk dina nekk émission am te ne incha allah yaa naan éleveurs yu bari nañ ci gis seen bopp te dinañ ci sant yàlla te fu muy génne mooy laadu